mbokki talibé yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi nga xamné yene ñuy sétane ak ñi nga xamné ñoo ñuy déglu ñu ngi fi ci pak bu mag di wajal bëss bu mag fi ci daru salam dekkup mam Cheikh Anta Mbacke borom gawan ngir yu bëss bi nga xamné ni at bu jot Serigne Fallou gala sille da koy def muy bésu sant ak ñaan ñu jaglél ko serigne Modou roqiya gannaaw bu ñu santé yalla julli ci yonentam bu tedd bi sidina mohammed sallallahu taala alayhi Wasallam. ñu ngi ñaanal serigne Mountakha mbake xalif general des Mourides mu yagg fi lol te anda ak wër ci ndigalal serigne Cheikh Anta mbake khalifa serigne Modou roqiya serigne fallu Galass Sylla nag mooy woote bu mag bobu de besu ñaan ak sant benn fan allah ci weeru avril lay doon li yees ci bés boobu nag daf ciy dellu njukkal jàmbaaru lislaam ji nga xam ne moo fi bàyyeekoo bu yàggul di sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke Khalif General des Mourides yàlla nañu ko yàlla fayal. noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyoo ci bu sell bu bi di Daaru Salaam ci kanam kilifa gu gu tedd di sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu sëñ Modou Rokhaya ñu di ko ñaanal ak di ñaanal xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké kàddu yi nuy yëkkati nag mbokk yi boo leen ko déggee xam li ko waral mooy bis boo xam ne Serigne Fallou Galass Syll mi nga xam ne kenn ku ne xam na ko ci waaru bay ci toolu Serigne Touba Khadimou Rasoul ci di ko liggéeyal ci guddi ak ci bëccëgam moo am bis boo xam ne nag daf ci fàttaliku ak a ñaanal ak a sant Cheikh Ahmadou Bamba waaye di ñaanal nag wasilaam wu sell wa di ko fàttaliku muy sëñ Modou Rokhaya di bis boo xam ne nag dafa a doon benn fan incha allahu ci weeru avril bi di ñëw di bis boo xam ne nag dañu koy yendoo ba ngoon waaye ci teewaayu nag Serigne Cheikh Anta Mbakke di bis boo xam ne bisu alxuraan la bisu xasiida la bisu zikar la di bis boo xam ne it bisu fàttaliku baax ak melo wi nga xam ne sëñ Modou Rokhaya amoon na ko waaye bisu waxtaane kenn si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul Serigne Fallou Galas nag di wax ne mënula lim ndax moom day dafa jàppe boppam ne soppeem ñëpp la ndax képp koy wax ashhadu la laa ilaaha illa anta muhammadu rasulullah tabbal na la ci biir xolam waaye nag rawatina képp koo xam ne yaa ngi ci ahmadou bamba xaadimu rasul kon képp koo xam ne yaa ngi dégg woote bi baa nga di ko gis nee na yëgal ne mi ngi la ko yëgal te di sàkku foo mën a nekk ay ñaan ci alquran ak xasiida jëmee ko ci jëm ju sell jooju moo Modou Rokhaya waaye jëmee ko ci jëmm yi nga xam ne it ñoom lañu ñu fàttalikoo bis bi muy sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne ku xam sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar xam diggantee mag sëriñ Cheikh mii nu dendal ci ay yu baree bari dox seen diggante ci ak mbokkoo waaye ci xaritoo ak safoo ak jege yoo yàlla ci lépp loo xam ne doy la woon na ko ci yu baree bari di bis boo xam ne nag nee na fàttewul képp kuy mbokk waaye képp ku dib taalibe képp ku mën a doon mi ngi la koy yëgal di ci sàkku sa teewaay di ci sàkku sa ñaan bu fekkee ne sax ñëw mënta jàppandi di xam ne lépp loo xam ne am na ko ci bis bi mi ngi ñaan yàlla sunu borom mu delloo ko ci kilifa gu baax googale di Serigne Modou Rokhaya waaye Serigne Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam dañ koy fàttaliku waaye di ñaanal nag Serigne Cheikh Anta mi suñu borom yàggal ko fi te wéral ko fi mooy képp ku mu bokkal liggéey bii mi ngi la koy yëgal moo xam muy wi ñu nekk muy presse yëpp kenn ku ci nekk foo ca nekk wet goo ca féete sëñ Fallou Galas nee na mi ngi la ko yëgal waaye ñi mu bokkal dëkk bi mi ngi leen koy yëgal ci kenn ku mën a doon ak ñi nekk ci bitti dëkk bi tàmbalee ko ci bokki boppam ak ñi mu bokkal kër gii nga xam ne mooy kër sëñ nga xam ne mooy kër maam Cheikh Anta Gaawaan ñoom bis bi seen bisa ndax ku tudd sëñ Modou Roqee tudd nga yoonu Murit ku tudd sëñ Modou Roqee tudd nga Daaru Salaam kon bis baa ngi noonu war a doon incha allahu dimanche benn fan ci Daaru Salaam ñu leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi di xalifa sëriñ Baara mbakk tey ci suuf di xalifa Sidi Muxtaar ñu ñëwee fi ñaari tànk yoo xam ni tànk yi cant rek la ak tànk yi ngërëm mu jëmee ko ci euh, sëriñ Cheikh Anta mi nga xamante ni kenn ku nekk xamoon na digganteem ak sëriñ bi loolee nag la sëriñ Moustapha di feddali ak njabootuk sëriñ Baara gépp euh, lam ko waxoon rek ne ko lépp loo xamante ni loo nekk rek. danañ ca nekkandoo ak yow loolu moo waral sunu jotaay bi tey jii bisam bi nga xamante ni bis bi nga xam ne ñu ngi koy def di ko defal waajur mu tedd ba nga xamante ni sëriñ mu Roqaya mu nekkoon kenn ak sëriñ bi sëñ Sidi Moxtaar ba loolee di ba ci sëriñ Cheikh Anta bi nga xam ni sëriñ bi xàmmeewu koog doomi boppam yi mu jur te am na yoo loo xamante ni sax am na lu mu ko xamal loo xam ne ñun xamaluñ ko ko te lépp. ci ab yaram ak ay tegginam ak ak taalibeem moo ko fa àggale ci digganteem ak sëriñ bi ba sëriñ bi dénkoon ko lu baree baree bëri loolee nag moom la sëriñ Moustapha di gën a feddali ci digganteem ak moom ak njaboot gi yëpp di ko séeréel mbooleem koo xamante ni si yaa ngi fii ci Daaru Salaam ak mbooleem ku nekk ci e, tuuba loole daal la fa ko sëriñ bi tegoon ak nam defoon ak sëriñ bi loolee sa su nek neena ma nga ci guddi ma nga ci beccëk te xamni am serigne bi ci jëmi bopam yobale na ngeerumul serigne Cheikh Anta mi mm-hmm. kon lolu uh, motax munima bo debé nga téwal ma fa uh, uh, jottali kaddu yoy te xamni lepp day lenn kon ñu ñu ñaan kep ku fi teew ku nek rek suñu borom jéggal say bakkar mm-hmm. auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سير الدوان وتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن بوكي جليدي نيوغي لين دي نوي بي دي سوف سنوب نيو كي بوكي في جيتو دي فاتلكو بيس بيغا خامني موم لا سيغ di amal fii ci Daaru Salaam di bisub sant Serigne Mouhamadou Rokhaya nga xam ne yoonu murit wépp man naa ne ñoom la ko defal rawatina ku bokk Daaru Salaam waaye nag képp koo xam ne Serigne Modou Rokhaya mooy sa bunt bis bi sa bisa ndax Serigne Modou Rokhaya la koy defal ba tax na li ci war a jiitu nga xam ne moom la ci jiital muy njàngum alxuraan mu di ko sàkk ci mbooleem daayira kaamil yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi te di ci jital daaree kamel yi nga xam mo nek fi ci daaru ak daara alquran yi nga xam ño nek fi ci daaru salaam ak wër euh wër la ci serigne Balla ak eh, serigne basirou saxo ak daare kamel fi dekk yëpp mi ngi sakku ci ñom duñ man ci ñu jang ko mi ngi dagaan nak ak limu 97 Kamel, nee ngir ñu jagleel ko Cheikh Sidil mukhtar mi nga xam mo laq ci bët barke dembu waye ñu limitam 78 kaamil jagleel ko sunu jàmbaar ju baax ja murid saadix ba sëriñ Mouhamadou Roqeya ak lu ñu ci mën a boole ci xasida rawatina xasida ak sindiidi nee na mi ngi koy sàkku nag ci ñëpp te lu ci waaye man mu def ko ci ay salaatu na nabi itam mu mu def ko ngir yéene yool boobu sëriñ Mouhamadou Roqeya ak mbooleem jabatug borom gaawaan gi jiitu ak jullit yëpp ak taalibe yëpp waaye jagleel Cheikh Sidi Mouhtar mi mu jagleel bés bi ñaan googu ma wax itam mooy alxuraan lu ñu ci man lim boobu. 97 kaamil ngir ñu jagleel ko ko loolu moo doonoon yëgle bi ci wàllum njàngam alxuraan mi ndax euh, sëriñ Modou Rokhaya ku koy defal biskat jiital def ci euh, alxuraan lu lu muy bëggee ndax moom sëñ Tuubaa rek ko la ko jëmee woon bi si dunyaa la ko neex la. Sëñ Fallou Galass Syll mii nag li muy def nii. man loo ma seen may yëngu rek xamal ne gis naa ca biir Serigne Touba gis naa ca biir alquran gis naa ca biir yonente bi gis naa ca biir maam Cheikh waaye fasakkir in nafaati zikra sunu borom moo ko waxoon yonente bi kon buy fàttaliku di fàttaliku jàmbar joo xam ne liggéeyal Serigne Touba rek la defoon muy am xëyam def ko muy am ngontam loolu bis la boo xam ne képp koo xam ne positif sëriñ Modou Rokhaya neex na la wala positif sëriñ Modou Rokhaya bëgg nga caa bokk euh, bis boobu war naa rëy ci yow war nga cee teew si euh, rawatina nag li ko tàmbalee ci bis bii ak keroog ba Cheikh Sil Mokhtar demee àjjana man lépp lu ma fi defati dama wax ne nañ ko duppee Cheikh Sidil Muxtaar ndax defal na ma loo xam ne mënuma koo fay mukk ci àdduna dama ci niral rek dëgg la jàppoon naa ne li ma sëriñ Saliou defal kenn mënumaa defal lu ko weesu li ma alaaj baara defal kenn mënumaa defal lu ko weesu waaye sëriñ Muntaxaat li mu ma defal kenn mënu kenn mënta def lu ko weesu Cheikh Sidil Mokhtar kon nag bis bi moo tax duppe gi ñu ko duppee Cheikh Sidil Mokhtar tax na ma bëgg taalibe yëpp ku ko mën a koo mën nga teew si ci te xam boo fi teewee la Cheikh Sidil Mokhtar waxoon ci dëkk bii ne ku fi teg sa tànk yàlla jéggal say bàkkaar ndax dañ koo wax ne dañoo wax ne Cheikh Sidil Mokhtar nee na ku dem Daaru Salaam tey muy bis bi fi Sëriñ Amiru jóge ñu jéggal say bàkkaar bañ ko ko waxee mun déet waxuma loolu damaa wax ne ku teg sa tànk ci suuf su Daaru Salaam suñu borom dana la jégal say bàkkaar kon nag Fallou Galass Syll la jëwriñ la ju mat jëwriñ ci kër gi te it yëngutu yëngutu bu muy yëngutu rek Serigne Touba tax loolu moo waral kër Serigne Touba yëpp fu ci ne ma yebal ko mu nekkal ma fa la ma fa war a def mu ni ma ko fa defal ndax doy na ma ci te ma ko fay jëfe fu ko yebal rek bu ñëwee ma ma gis euh, ñooñu seen mbég euh, gis naa kayit woo xam ne Serigne Fallou Mbacké ci weer wi mu koy defe ndax yàlla dimbale na ko weer wi mu koy defee weeru ngëneel la ci la Serigne Fallou gane àdduna moom mi moo tax aw turam am waaw weer wi moo tax aw turam am ndax ci weer wii ci la sëñ Fallu gën a àdduna kon ñu tudde ko sëriñ Fallu ak yeneen Fallu yi ci des yëpp itam weer bi mooy seen weer kon loolu mel na ni eh, li mu dajeel firnde la ci ne li muy ñaan suñ borom dana ko nangu ñaan ko nangu nag foo ko dégg boo doon jël avion sax jar na ko nga ñëw fekk si ko rawatina nag nga ñëw def ci dara waaw kon gisoon naa kayit woo xam ne sëñ Fallu moo ko bindoon bu yàgg màggalu tubaa wax ne Cheikh Anta Sylla bàyyi fal suñ fàllu Sylla mi fu mu bëgg a dugg ci sama kër kees gu mu bëgg a dugg am na ndigalul dugg fa signé ca suuf alxaaji Mouhamadou Fadilou Mbacké jox ko suñ Cheikh Sylla mu yor kon nag loolee moo tax kër suñ tuwaay yëpp ma yebal ko fa mu nekkal ma waaw kon nag weer wi weerama ñaan yi ci ñaan yëpp na dellu ci eh, sëriñ bi sëriñ bi wisaare ko ci njabootam gi eh, rawatina rawa ko ci eh, njabootuk boppam gi wisaare ko ci njabootuk maam Cheikh Anta wisaare ko ci njabootuk maam maaram gépp wisaare ko ci jullit yëpp rawatina nag Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne guddi gi moo bis bi moom moo ko moom tey moom lañ ko jagleel lu fi def ci yëngatu suba ak ngoon moom lañ ko jagleel moo tax kaamil alxuraan yi jàng ñu def ko limu ay at yi mu am ci at ci kaw suuf yàlla na ko ci yàlla ak sëñ bi jotale te sëñ Moustapha mi mu fi bàyyi itam te mu Xaadim mi nuy ñaan suñu borom sàmmal nu ko ba yéene ju Cheikh Sidil Mokhtar yéene woon mu àggale ko ni mu ko bëggee li feeñ ci tuyaaba daal yàlla na ko bokk ak taalibe yëpp bokk ko jullit yëpp. di dimanche benn fan ci weeru avril di fukki fan ak ñeent ci weeru rajab muy bés bi nga xam ne sëriñ falu Gala Sylla moo ko daan def at mu jot di ci delloo njukkal Serigne Modou Rokhaya bés boobee nag mu tànn ci ren di ci rendre hommage Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des mourides sunu borom dolli koy leer te taas ñu ci barkeem. muy dagan jurom ñen fukki kamil ak jurom ñaar ñu jang ko ci alquran jaglel yoon wi serigne Sidi Moxtaar waye jang jurom ñaar fukki kamil ak jurom ñet ñaanal serigne Modou Rokhaya serigne Fallou Gala sila nak bu delo njukkal serigne Sidi Moxtaar delo na njukkal serigne Cheikh Anta mi nga xamne ñepp xamone dañ seen digënté kon nak neena mu ngi wo ñepp te ko xamne kuy soppé khadim rasoul xam nga ne sëriñ Fallou Galass Sylla amul frontière ci yoon wi kon bésam kenn warul xaar ñu di la ci woo képp ku dégg woote bi rek xamal ne mooy sa invitation benn fan ci weeru avril lay doon fukki fan ak ñeent ci weeru rajab di dibéer yal nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu def ci euh, lépp luñ ci ñaan it sunu borom nangul ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu